ginnaaw bañ mi temps wee ñëw ñoom ñaar ar bi sifle waat na Baye at pool Paul Maurice gannaaw bañ demee naan ndox mu tàng comme ndox mu amu fi daan Baye Waly ak Paul Maurice Baye Waly ak Paul Maurice ndeysaan ñaari xale yaa noonu eh Baye Waly jam na Baye Waly jam na gauche droite eh mais mi Baye Waly a ngi dox si kawam eh Baye Waly a ngi dirigé waaw bu ñu demee ñëw coach yi dañuy xool li ñu mënante bu mu dul yàqale kay tey kay Mass Ba Wade am na client bu mu dul yàqale fenn. Eh, mbëru Omar Faye am na client. bilaay Mbëru Omar Faye bi am na client sees bi. da nga xam ne tey Paul Maurice am na lu mu de. laa ilaaha illallaah la muy door rek. Baye Waly eh, mais Paul Maurice baax na. Paul Maurice moo gën a avantage si xeex bi. moo tax Baye Waly jàppante bi la bëgg mais Paul Maurice nanguwul loolu. ndax Baye Waly mbëru eh, am na kii naa tey dul yàqale. waaye Paul Maurice it am bi am nga kii naa boo dul yàqale tey. laay ah. mais Paul na lu turandoo Paul Maurice Baye Waly ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi dañuy eh, mais Paul uppercut la jam gauche Baye Waly Paul Maurice ñu ngi damantay baaraam si kaw ñoom ñaar Baye Waly at Paul Maurice soo xoolee Baye Waly jàppante bee ko arrangé Baye Waly jàppante bee ko arrangé waaye Paul Maurice xeex bee ko arrangé Baye Waly at Paul Maurice xeex nañ ñoom ñaar Sagne ñu ngi xeex ñoom ñaar Baye Waly ak Paul Maurice Baye Waly xeex Sagne ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar Baye Waly waaye Waly Paul Maurice ndeysaan bëre leen bëre leen comme seen xeex ñorul bëre leen waaw du doomu jalaaw du doomu jalaaw kese Alboury toogatul waaye Waly ak Paul Maurice ñu ngay damante baaraam si kaw parti na ko mu bañ Baye Waly Paul Maurice Baye Waly Paul Maurice waaw. Paul. Paul am avertissement. passivité. waat na. Baye Waly doxaat na si kawam. waaw bu temps bi jeexee Baye Waly day am chance. Baye Waly. Baye Waly looy xalaat. moo koy Baye Waly. Baye Waly jam na gauche gauche waaw. Baye Waly jam na gauche droite. Baye Waly. Baye Waly at Paul Maurice ndeysaan jàppante nañ jàppante nañ ñoom ñaar Baye Waly jàppante la bëgg waaw may na Baye Waly la bëgg ndax Baye Waly mbërum bobaat la la Baye Waly bëgg la ko may Baye Waly ndax Baye Waly mbërum bobaat la Baye Waly Baye Waly dafa dugal bi dëpp ko naax ñu xool Baye Waly lu muy def jël na tànk ba mu bañ taan Baye Waly at Paul moris boo xoolee Baye Waly toujours loxo baa ngi sa kaw mu tëbb naax saan lëf lu yàlla saan Baye Waly Baye Waly at Paul Maurice Baye Waly at Paul Maurice Baye Waly Baye Waly ngi dajale waaye Paul eh, Baye Waly dafa bëgg a jàpp ngemb waaye mu am ngemb ndax Paul daa ndengeñ Baye Waly Paul Maurice Baye Waly at Paul Maurice Saan Saan <laughs> Baye Waly at Paul Maurice Baye Waly at Paul Maurice Baye Waly at Paul Maurice Baye Waly dafa dëbb naax waaye bool dafa téye si tiq jaraga hypercule waaw hypercule waaw hypercule waaw hypercule waaw hypercule la hypercule baax na hypercule Baye Waly saan hypercule Baye Waly a ngi koy puus dafa mel ni Baye Waly day calculer Baye Waly dafa calculer Baye Waly day xalaat Baye Waly day xalaat temps bi jeex na Baye Wally dafa mel ni am na ndam waaw Baye Wally na Baye Wally Ndiaye looy xalaat Baye Wally mer na Baye Wally mer na Baye Wally te du teg seize Baye Wally du teg seize Mbodj ak Omar du teg seize eh, Mbodj ak Omar ba jël na seize oh, Mbodj ak Omar ba jël na noonu Omar bu raskaas wala Omar bu Baye Wally oh. ah Baye Waly mer na waay waaw borom Baye Waly borom sees bi kookoy Baye Waly borom sees bi Baye Waly a ngi noonu ndeysaan kookoy Baye Waly moom moom sees bi kookoy Baye Waly moom moom sees bi borom Omar bu raas kaas kookoy borom Omar bu raas kaas bi ndeysaan Baye Waly kookoy Baye Waly ndeysaan Baye Waly a ngi noonu